mbokk yéen internet Thiès Info salaamaaleykum daal nag jàmm seen émission la buzz du net le buzz di si émission bi nga xam donc Thiès Info daf koy initier Euh, fas leen andi lépp loo xam ne donc moo di buzz ci euh, internet bi à travers donc les réseaux sociaux euh, donc dañu koy tàmbaleek Seneweb Seneweb nag dafa ñëw ci kaaw Aliou Sall Aliou Sall maire bu Géejawaay moom nag moom maire wu Géejawaay dañu ko testé mu daal di amee lii di jàngoroy coronavirus moom nag leen mbir mi dalul ci moom kese waaye également dafa laale ki nga xam ne moo di soxnaam ak ki nga xam ne également moo di chauffeur am jamono ji mën nañu wax ne coronavirus donc également yegg si na ci Géejawaay rawatina moo di euh, mairie bu Géejawaay dal ci ki nga xam ne donc moo di jaraafu gox ba euh, di Aliou Sall mi nga xam ne donc moo di maire bu Géejawaay leneen li ci am nag lu gën a doy waar moo di ne euh, kii di Aliou Sall ki nga xam ne donc moo di chauffeur am bi ko doon dawal dafa amee également li di feebaru coronavirus moom nag bi ñu ko testé ba mu amee jàngoro bi dafa daal di réer mëng boobee ba léegi nag teguñu ko bët moom moomee di chauffeuru maire bu Géejawaay di Aliou Sall chauffeur boobee ba léegi nag teguñu ko bët moom nag jàngoroy coronavirus également dañu ko testé mu amee ko mu nekk nag mbir mu doy waar bi nga xam ne rek également euh, Seneweb euh, ñëw na xëy euh, fësal ko ci xëtam bu njëkk ñu wax ci leneen ak Sénégo Sénégo nag dafa ñëw ci kenn koo xam ne ay kàddoom tàmm nañ ko ci jamono yi nga xam ne donc moo di jamonoy coronavirus muy wuyoo ci Chérif Yaaya Ba Chérif Yaaya Ba nag boroom xam-xam la boo xam ne yëkkati woon na ay kàddu jamono yi ñu génn wax ne am na ay autorité am na ay ñi nga xam ne ay boroomi tur donc moo di jàngoroy coronavirus euh, tey bu ko euh, maire bu Ndakaaru maire bu Géejawaay bu ko amee dafay firndeel euh, kaddu yi nga xam ne donc Chérif Yaaya Ba mu ngi ko doon wax waaye leneen lu nga xam ne rek yëkkati na ko te Sénégal xëy fësal ko ci xëtam bu njëkk moom Chérif Yaaya baa wax na ne am na ñeneen ñoo xam ne ay autorité lañ ay boromi tur lañ nekk fii ci réew mi daañu amee lii nga xam ne donc moo di jàngoro yi coronavirus loole nag kàddu yi xam ne donc moom la Chérif Yaaya Ba xëy yëkkati euh, Sénégal moom moo ko euh, xëy fësal ci euh, xëtam bu njëkk leneen li nga xam ne également Sénégal fàttali na ko mooy kàddu yi nga xam ne rek yëkkatiwoon na ko ci atum 2012 moom Chérif Yaaya Ba ci atum 2012 bu ngeen fàttalikoo ci élection présidentielle yi moom moo waxoon ne ki nga xam ne moo di président Abdoulaye Wade dina dal di wàcc maanaam dinañ ko gagné ci élection yooyee donc également noonee donc la ko euh, Sénégal xëy fësalee euh, ci euh, xëtam bu njëkk muy kaddu kii di Chérif Yaya Baba ñu dellu wax ci leneen muy kawteef musiba mbaaba kumba boo xam ne donc ba Sénégal xëy na fësal ko ci xëtam bu njëkk mu xew fële nag ci Parcelles asseni ci rond cage bi foofe nag benn euh, góor gu toll ci juróom fukki at moom daal moo daal di dox ba noonee la daanu ci noonee daal la jot a ñàkk bakkanam laata sapeur di ko fa jël si euh, moom nag góor googee toll ci euh, juróom fukki at noonee donc la ko Buzz Sénégal xëy fësale ci xëtam bu njëkk mu mel ni mbir yu ni mel nag jamono ji nekk na lu lu bari ndax bu ñu fàttalikoo fii ci diwaanu Thiès te Thiès info fësaloon ko donc ci xëtam bu njëkk mooy kii di góor gi nga xam ne rek dafa toll ci ñaar fukki at ñëwoon fii ci euh, quartier leen euh, ci benn euh, koo xam ne rek dafay faj fajum olof ngir faju ci fa fonoo ne daal ca buntu kër ga fa la daanoo daal di également ñàkk bakkanam mu nekk nag mbir mu doy waar boo xam ne également xew na fële ca rond point case ba mais xewoon na également fii ci diwaanu Thiès ci fi nga xam ne donc moo di quartier leen sama doom feebar na pendant trois mois. Mouhamed Gueye la tudd lu li ma ko doon faj nag mooy fittu saalum yooyu laa ko doon faj fii ci ci put waaw sëriñ yu ne dem naa ci waaw fii nag la ko yàlla dogalee noo ñu ngi jógeen dem saat sama kër lañu ñu jógee waaw di ñëw fii kii mën naa faj wala mënul faj léegi ma indi pour faj waaw bu wéree baax na bu wérul lii la yàlla dogal jeex na. ah non bi ma ko indee dafa wàcc rek. ñu dem ba fële mu wàcc daanu toog toog ci suuf après dem ah kii nag moo ma wax ne ma dafa gaañu après ay vingt ans yooyu rek wala ay seize ans yooyu rek ah menuisier tapissier la doon liggéey waaw bi amul gravité affaire bii la. affaire tab yii la affaire bi daal moo ko rey moom laa gis du feebar parce que man sàgganuma samay doom pour ñuy dem ay àll yooyu bala ngaa ñëw di nga raxasu bala ngaa def dara di nga raxasu dara jotu leen aussi tamit du ñu bouché ñoo ngi ci euh, lan feu kon ngay toog kon moom yàlla ko dogal ci affaire bi rek mu dal ko rek waaw avant ñuy bi mbas mi sax la ko dal parce que mbas mi deux mois la te man maa ngi ci troisième mois waaw. moo tax may loolu moo am li ma wax nii loolu moo am. fësal ko ci xëtam bu njëkk ñu des également ci buzz du net ba tey wax ak Dakar buzz Dakar buzz nag dafa jóge ba diwaanu Ndakaaru dem fi nga xam ne moom moo di Lougaloo Lougaloo mbir mu doy waar moo fa am ndax benn soxna soo xam ne euh, donc dafa am borom kër ci jamono yi ñu génn euh, xëyoon nag doon wutali fa nga xam ne rek fa la borom këram nekk ngir rek far fas yéene faa feetu lii di feetu ligne de mielam mais la ca gën a xew mooy doy waar ndax lii di transport interurbain yi xam ngeen nag le ministre Aly Ngouille Ndiaye ko ko daal di interdire tax mu jëloon benn taxi ngir rek dem wutali ca euh, boroom këram ci noone daal la ko gendarmerie jóg a teg loxo euh, ba daanaka euh, soxna soosee jamono ji mën nañu wax ne lii di ligne de mielam mu ngi koy amalee fee nga xam ne donc moo di ca prison li ko waral nag moo di lii nga xam ne moo jëm ci transport interurbain dañu ko daal di tere noone donc donc la ko Dakar Buzz xëy fësale donc ci xëtam bu njëkk leneen lu doy bu ñu jógee Ndakaaru dañuy Paris ci consulat bu Sénégal euh, foofee nag xam ngeen na ñi nga xam ne ñoo nekk euh, sénégalais de la diaspora xam ngeen ne président de la république waxoon na ne am na ndimbal lu am solo loo xam ne donc dina ko jagleel doomu sénégalais yi nekk fële ca tugal euh, foofee nag sénégalais yi dañoo xëy wutali fi nga xam ne donc moo di ci consulat ba ngir laaj li nga xam ne moo di koppar gi président waxoon na ne moom la fas yéene jagleel ñi nekk ci diaspora bi tax daal ñu xëy di tey jiile foofee ca consulat du Sénégal bi nekk fële ca Paris ngir rek ñoom laajit euh, seen wàll ci li nga xam ne moo di euh, xaalis boobee nga xam ne dañu ko jagleel euh, ñii di sénégalais yi nekk fële ca diaspora mu mel ni mbir mu nu mel nag taxoon na rassemblement bu mag am fa fële ca consulat bu Sénégal ba nekk fële ca fële ca Paris tax ñi nga xam ne donc ñoo di sénégalais ya fa nekk ñoom it di laaj li nga xam ne mooy seen wàll jëm ci lii di force Covid 19 ak jàppale bi état du Sénégal fas yéene jàppale doomu Sénégal. sénégalais yi nekk fële ca tugal euh, kon euh, Sénégal noonu la xëy euh, fësalee ko ci xëtam bu njëkk. donc le buzz du net dafay ñëwaat ci leneen dem fële nga xam ne nag moo di fële ca Kaolack foofe nag ci fi nga xam ne moo di Koutal wolof nekk ci département de Kaolack foofe nag benn waay bu toll ci ñaar fukki at également moom daal moo xëy daal di xaru ginnaaw bi nga xam ne rek buum la daal di jël takk ci baat bi. takk ci garab noonee la wàccee ci la jotee ñàkk bakkanam noone donc la ko Sénégal set euh, xëy euh, fësale ci euh, xëtam bu njëkk mu nekk mbir mu doy waar kawteef bu xew ne moo xew fële ca Koutal Wolof nekk ci département bu Kaolack ñu euh, jeexale donc ak euh, dellu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu leneen loo xam ne donc euh, musiba mbaaba kumba la kaawteef la xew fii ci diwaanu Thiès Ndeye Seck signature mi nga xam ne donc jóge woon na fii ci jamono yi ñu génn ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ki nga xam ne nag moo di taawam bu jigéen doon wuyoo également ci turu mbay yi moom nag moo xëy daal di ñàkk bakkanam donc noonee la ko sans limite xëy fësale donc ci xëtam bu njëkk mu nekk nag mbir mu mu doy waar Ndeye Seck signature nekkoon koo xam ne rek artiste la woon bu nekkoon fii ci diwaanu Thiès doon yëngu ci wàllu aar def fi nag lu ama am solo fii ci diwaanu Thiès ak fépp ci réew mi moom nag bàyyeekoo na fii ci ju fukki fan ak juróom ci weeru mai euh, noonee donc la fi euh, fukki fan daanaka lañu si teg moom ki nga xam ne moo di taawam di wóy ci turu euh, soxna Kiné moom nag moo jot a ñàkk bakkanam moom également dem fekk si wéy juróom jigéen boobee di Ndeye Seck jaloor yi mu def ci wàllu aar art def ko ci wàllu musique euh, euh, sénégalais yëpp xam nañ ko sénégalais yëpp également rafetlu nañ ko parce que joué na ci partition bu am am solo moom Ndeye Seck signature koo xam ne sax bu ñu fàttalikoo ci euh, festival Kaay Thiès bi ñu doon amal fii ci diwaanu Thiès moom bokk na ci ñi nga xam ne ay icône lañu woon bokkoon na également ci ñi nga xam ne sargal nañ leen ci bés boobee di Ndeye Seck signature ndax parcours bu am solo bi nga xam ne def na ko ci wàllu art def ko également ci ci wàllu musique ba tey Sénégal ñëpp xàmmee ko donc li ñu koy ñaanal mooy suuf oyof ci kawam mais également euh, euh, doomam bi nga xam ne bàyyeekoo na fi ci euh, fukki fan ginnaaw bi mu wàccee liggéey moom day sekk signature mu dem wuy ji ko moom it ñu koy ñaanal ñi nga xam ne également loole la ñuy ñaanal wuy juróom boobee suuf woyof ci kawam mbokk yi ñu doon àddoo nag fii ci Thiès Info seen émission le buzz du ngeen àndoon ceeg Ahmadou Bamba li ci kàddu gi jox leen rendez beneen numéro buzz du ci seen site thiesinfo.com jërë ngeen jëf